keroog bi nga xamee nii ñi nekk ci gàmmu gi ñu glissé ma benn note ni ma Khalifa Sall Aïssata Tall Sall et soixante de leurs camarades dañ leen dàq dañ leen exclure du parti socialiste euh, am na benn réaction bu ma am immédiatement si euh, tàng tàng bi une réaction à chaud Mais au-delà de ces réactions, il nous faut une réaction réfléchie. Parce que Parti socialiste, mon compte au centre de la politique sénégalaise pendant plus de 40 ans. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, la vieille maison de Léopold Sédar Senghor et de la première génération après l'indépendance est en train de s'effondrer. parce que sëñ Abdou daf ma daan wax naan qulillahu malikal mulki man tasha wa man tasha wa tu'izzu man tasha wa bi ma daan wax ak parti socialiste moo tax mu dégg aaya boobu ka yàlla moo jox góor ku ko neex ma ne ka lu tax mu ni ma li nu def lépp pour que Senghor bañ falu li ñu def yépp pour que parti socialiste bañ falu te parti socialiste falu na taxaw na Senghor taxaw na tey nag suñ demee ba tondoo sëñ Babacar Khalifa ñu dàq ka du parti socialiste dafa mel na du moom rek la ñu dàq képp koo xam ne kii gëm nga sëñ Babacar da gis sa bopp si dàq boobu ñu dàq Khalifa Sall waaw eh, moo tax. Euh, les gens qui sont concernés par le Parti socialiste vont au-delà des militants actuels euh, du Parti socialiste kon nag suñ ko dàqee moom Khalifa Ababacar Sall day mel ne su demee dana yóbbaale surtout bi nga xam ni woon moo téye woon Parti socialiste et ça intervient au moment où non seulement le Parti socialiste s'est effondré au niveau du Sénégal parce que les frondeurs qui sont au niveau du Parti socialiste si on le mesure Ils peuvent être la majorité de ce parti, mais au niveau international, le consentement que le Parti socialiste avait, en étant soutenu par la social-démocratie internationale, en étant essentiellement soutenu par le Parti socialiste français, qui s'est lui-même effondré au cours des dernières élections. Parce que revenu à 6,5% aux élections présidentielles, c'est-à-dire la même débâcle qu'en 1969 avec Gaston Devers. Donc le Parti socialiste a subi une hémorragie en son sein à cause des frondeurs qui constituent quand même une base solide, a subi, a perdu son consentement international, oh, c'est en ce moment-là, alors qu'il ne pèse plus d'un poids, et Macky Sall le sait, et il ne va pas hésiter à, à l'éliminer. Et en ce moment-là,